waaw agression yi de yenn saa fi fii à partir de zéro heure lay lay faral di am ay zéro heure. waaw police yi moom dañu fiy jaamante tout le temps sax. borom moo tey agressé leen. mais man sérieusement yàgg naa fi mais ñi ma gis ñu leen koy tuumaal ñu bopp dëkkuñu fi. pas grave am ay jeunes ambitieux yu am loolu man man man. dëgg Grand Yoff taxul nga bon. non agression moom bu dëgg yàlla moom agression yi moom nu ma la wax lii man moom bu dëgg yàlla ay sàccee sàccee laay dégg moom. man fii am naa fi 27 ans ku fi dëkk xam naa ko ku fi dëkkul xam naa am na ñu fi dëkk waaye fii lañ def. doon rek guddi gi lay doon même même bëccëg sax day am même bu ñu ko defee daw. seen réseau waa Grand Dakar waa Parcelles waa waa waa Géejawaay. acca salaamaaleykum mbokki internet yi suivre site bi di wasaare leen nuyoo. ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontaan te jàkkaarloowaat ak yéen comme ça su nekk ni ñu koy defee tey jii nag ni ngeen koy gisee ñu ngi fii Grand Yoff li ñuy waxtaanee mooy agression yu bëri yi nga xamante ne ni nemmeeku nañu ko lool mu bëri ci réew mi tey yenn saa yi nag yenn wenn wax yi boo déggee suñu nee Grand Yoff dañu neen agression foofu la ëppee bu ñu ne Grand Yoff ñu ne nangukatu alalu jàmbur foofu la ëppee moo tax bu ñu signalé que ne fii Grand Yoff dafa bëri ay li nga xamante ni moo di ay defkatu ñaawteef ñu jël suñu caméra ñëw ba fii fa séene gisee ak askan bi nga xamante ni ñoo yeewoo fii ci diwaanu Grand Yoff ñu wax ñu mbir yi naka la demee fii agression yi naka la fi demee ak yan heure la fi faral di am parce que ñu si bëri du samay kaddu nag mais kaddu yi askan bi nga xamante ni ñoom ñooy contacter ñun waa Wassare la ñoo nañu fii Grand Yoff sécurité bi bëriwu fi lool lool noonu agression bi dafiy am suba ngoon ak guddi yëpp kon kon ñu koy defee dañuy bëgg rek askan Euh, comme ça ñu mën koo moytu bu baax a baax comme ni ñu leen koy waxee euh, bu ngeen gisee seen koñ foo xamante ne nii bëri na ay agresseur wala def ko ñaawteef euh, dañuy afficher benn numéro ci suuf ngir ngeen mën cee woote ñu ñëw def déplacement ak dérangement ñëw jël si leen ndax li koy defee saa su nekk seen mbégte mooy suñu yitte ba tax li leen di yitteel rek la def kon damay dugg ci ruqu-ruqaatu Grand Yoff Arafat ah gisee askan wi nga xamante ni ñoom ñoo fi yeewoo ñu wax ñu mbir yi naka la demee ndax agression yi li ñuy wax ndax Grand Yoff dafa bëri agression Grand Yoff dafa bëri ay defkatu ñaawteef noonu la fi demee waaw wala déet sama caméraman bi lay àndal rek daal dugg ci ruq-ruqaat yi gisee askan bi tàllal suñu micro ñu wax ci seeni xalaat ci mbir yi naka la demee fii. bi nuyu naa la. fay naa la yaay booy. bi naka la. Ismaïla lañ may wooyee. Ismaïla fii mooy fan ci Grand Yoff. fii mooy cité tey ñu ñëw fii ngir waxtaanee li nga xamante ni moo di agression yi bëggoon xam naka lay demee fii exactement. waaw agression yi de yenn jëm ci ginnaaw comme ay deux heures trois heures agression yi fii des fois booy bu ñu jógee combat wala lu ci mel ni ay football bu ñuy jaar fii ñu def simol di agressé nit ñi en même temps tamit am na agresseurs yoo xam dañuy jël ay moto di këf ay saak bon souvent noonu lay demee fii waa ah. waaw. ñoo ëpp yi nga xamante ni moom moo fi am. waaw comme moto yi mu lay wax nii nii nii waaw moom moo fréquent fii waaw ah, moom moo fi nga xam ne guddi gi dañ lay teg ngàndaay ngir mën a nangu sa alal yooyu dafiy faral di am wala. waaw si si daf fi am surtout alaya bi nii jëm ci kaw ci wetu école bi léeg-léeg booy dañ seen paaka nii di dox waaw di nangu di dem waaw. bëccëg bi wala guddi gi. bon guddi gi souvent lay ëpp lu mu am moom bëccëg moom rarement laa ko gis muy am fii waaw. tey boo nee Grand Yoff ñëpp dañuy naan que ne euh, dafa bëri ay agresseur tey yéen waa askanu Grand Yoff naka ngeen koy dundee loolu. waaw ku la ne Grand Yoff amul agression moom day waaw day wax loolu neex agression moom souvent daf fi am bëri na fi trop sax waaw. mais yenn saa yi police day def descente si koñ yi wala. si si police yi dañ fiy jaar dañ fiy jaar di ramas waaw dañ fiy jaar di ramas di jàpp ay booy waaw. tey boo booy lancé ci askan bi nga xam ne ñoom ñoo fiy jaar yenn saa yi ñu guddee wàcc si seen bërëbu liggéeyukaay ban message lay doon. waaw bon li ma leen di lancé mooy ñu prudent rek ñu prudent rek waaw bu ñu prudent rek après li leen di dal moo leen di dal rek. waaw te tamit di lancer walla message gouvernement bi ñu siy jàppale eh, nit ñi citoyens yi nga xam te ne xam nga léeg-léeg dañuy guddee waat waaw ñuy wut ay police de proximité def ko fi xam nga ñuy def ay montage wala ay check point loolu da ciy da ciy da ciy baax parce que léeg-léeg fii nii dañuy jànkoonteeg yu grave yoo xam te ne ñun ñooy jóg xam nga intervenir mais du souvent waaw du doon chaque jour chaque jour parce que léeg-léeg doo ci tombé waaw. d'accord merci beaucoup. ok merci jaajëf. a sëñ bi nuyu naa la. maa lay fay. jàmm. sant bu baax naka la. Moustapha tey ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo di agression yi tey ñu cible fi nga xamante ni moo di Grand Yoff bëggoon xam agression yi naka la demee fee. waaw fii de moom agression yi moom daanaka chaque jour la. waaw parce que fii manque na sécurité. ñaaw teef yi bëri fi. waaw te booy maanaam ñoom ñooy fii. déewuñu def dara xool lu ñuy jàpp pour liggéey mais chaque jour dañuy nekk si ñaaw ñaawteef yi amuñu heure nag heure bu leen neex yi agressé waaw di dox si mbedd di tali sûrement même fajar bi sax fan yi fajar bi lañ jël waaw dañuy yeewu maire yi liggéey yi chaque jour imagine toi yow sa yaay génn war dem liggéey fajar yeewu fajar war dem liggéey booy dogaale ko xam def ay ñaawteef nangu ay portable am xaalisam genre xam nga yooyu rafetul quoi te ñooñ ñi def ñoom seen yaay ñu ngi seen kër yi ñu seen kër yi parce que ñoom ñoo jël maanaam ñoo jël dund bu yomb bi yeew war dem liggéey ñoom déedéet defuñu ko ñoom dañuy toog rek pour am ñoom jàpp nañu buñ liggéeyul war nañ dem agressé te loolu baaxul waaw ku si am sa yaay nag yow au moins li nga def yaay jàmm sa nga xool nga xool ko maanaam si sa yaay moo gën mais yow mairie war dem liggéey nga leen di dafa kii quoi même borom esseur yi léegi luy dañuy da ngay gaare sa jaxaraa sax ñu sàcc ko barki yàlla da ngay gaare sa jaxaraa ñu sàcc ko waaw doo si mën dara. yan genre moo moo fi ëpp maanaam ñi nga xamante ni dañ lay dëkkee ginnaaw teg la nga nay wala yi nga xam ne dañuy këf sa alal yeeg ci seen. booy lépp la def ñoom daal naan ba màndi duñu xam duñu ànd ak seen sago ñu commencé génn si bi ñoom balaa ñuy mën def dara rek tàgguwaat seen sago waaw. ñoom da ngay dawal sax ñu këdd la jël say sër baa ngay gaare say sër une minute boo ko defee ñu yóbbu say sër barki yàlla loolu moo fi bëri fii chaque jour chaque jour nga dégg sàcc nañ samay sër ci te ci koñ yi lañ koy def ci tali yi mooy loolu. tey ñi nga xamante ni yéen ñi nga xamante ni yéen a fiy dund tey nii naka ngeen koy dundee parce que tey boo waxee Grand Yoff ñëpp dañ naan la foofu wóorul ndax agression yi nga xamante ni mu ngi fay faral di am. waaw fii moom foo boo génnee sax nag Grand laa jëm kenn du leen kenn du la indi te ñun fii nii amaana sax yenn koñ yenn koñ yi kenn du sàcc seen koñ waaw comme man sama koñ diisoo 4G kenn du sàcc ñu koñ ku ñu gis ñuy sàcc moom doo doodoo ko defati bañ na ko sax du ñu fa ñëw mais à part yenn koñ la ñuy dem ñuy sàcc nii te da leen di bàyyi dafa am ay complices yoo xam ne dafa dafa rax si ñoom dañuy gis ñi booy di ñi ñu bàyyi la ñu dem te lool du yoon nit boo nekkee si koñ doon góor yàlla da ngay bañ yenn ñaawteef yi koñ nga gis ñi di saaj nga wax ay eh, tegal même bu lu mu nekk nekk sa xarit mais da nga war wax dëgg mais dañ koy bàyyi mu kii nii ñu baax mu dem ba pare di ko fatal nag teg si loolu moo ñaaw. amaana ñun jeunesse bi ñoo war jàppale suñu bopp si koñ yi ak si gox yi ku ñu gis ñaaw teef ñu xari suñu tànk duba yi loolu la demee. d'accord euh, day faral di def yenn saay euh, descente si koñ yi di xool ba xam wala. waaw police yi moom dañu fiy jaamante tout le temps sax ñoom dañuy ñëw di kii di des fois sax ñu xoolee nii sa kanam xaw a kii sax te la taxaw xool la mooy lool loolu mais amaana pël booy dañuy def ñaatee sax ñu jàpp leen duñ fa yàgg deux jours nga gisaat leen si si si kii bi si même ko dañ koy defaat mais bu ñu kii woon nga téye leen fa teg leen ay daan amaana buñ ñëwaatee duñ ko defaat mais da ngay kii deux jour ñu génnaat deux jours laa ñu génnaat loolu du yoon. tey bu amoon message booy lancé jëmale ko ci askan bi nga xamante ne yenn saa yi dañuy guddee ci seen bérébu liggéeyukaay euh, di jaar fii di ñibbi ban message lay doon. jaay moom amaana man message yi dama koy ñëwee si dama koy njëkkee si ñaaw kat def téef yi waaw def ko si ñaaw téef ñoom laa njëkkee message bi maanaam ñu xam ne ñoom ay jeunes lañ ñu ay jeunes lañ ñu xool lu ñu defaree seen avenir. jéem a xool lu baax ñu koy def jàppale seen ñaari waajur yi loolu ëpp solo si maanaam si jeune donc maanaam sa ba nga si toll nga koy def mais doo bàyyi ba toll yenn âge yi bëgg nga naan da ngay dem liggéey walla da ngay def dara déedéet doo ko mën complexe dafay daw ba pare doo nekk xanaa doo dem si entreprise boo xam ne da nga fay âgé ay xale ndaw ñu lay jàngal loolu indi ñaawteef yu bëri da ngay nekk jeune nga dem liggéey jàppale sa ñaari waajur loolay góor yàlla loolay jeune tamit noonu kii moom amaana ñoom mënuñu si dara parce que dañuy wàcc war ñibbi insécurité bi bëri na fi toorop mais mënul ñàkk tam ñu dem ñibbi di wax rek gox bi maire bi jëm ñu jàppale si affaire boobu noonu si gën a yokk sécurité bi teg bu jëree sa teg ay homme de tenue ñuy pointé waaw chaque des fois ñuy pointé heure guddi bi fajar bi yëpp ñuy pointé pour dimbali maire yu xëy wala paa yi waaw wala jeunes dem. liggéey tamit parce que li leen def métti na trop waaw. d'accord ok. Euh, kilifa gi nuyu naa la. waaw salaamaaleykum rahmatulah. Eh, yéen ñi jël jaafe bi nuyu naa leen. nuyu bu baax bi ak seen gi yaram waaye xale yi ci weete école dañ nekk di sàcc ji guddi rek nga dégg daw daw daw daw nga gëstu doo kenn fekke lu yore yëpp yóbbu nañ ko. lu weesi loolu. xale yi di xew ci daw ci guddi. jaar fii. sàcc yi day ñëw. di xool di wax. ma ne ah lii day tiitaan na ma. munuma jogu ere bi. waaye noon tiitaan na ma lool. nañu dimbali ci école bi. bunte école bi tali bi. ah nañ ko sàggandiku. dimbali ñu. nga ne mu daw amuñu dara. Eh, dimbali rek ngir yàlla yonente d'accord agression bi eh, maanaam ñan ñoo ëpp ñi nga xamante ne dañ fi agressé borom moto yi wala ñi xam ne dañuy yor seeni tànk. agressé yi ngay gis borom moto yi paak taxaw ci tali bi bu see ah, nga yore téléphone rek kaf ko kaf ko daw nga xam loo ji fu mu jóge wala fu mu aw. nga gi loolu la amoon li may wax. Ah, kilifa gi nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna si. jàmm maa ngi ci jàmm baax a baax. tur bi naka la. Ibrahima laa tudd. Ibrahima tey ñuy waxtaanee agression yi nga xamante ne nii nemmeeku nañu ko ci réew mi mu bari fi lool tey ñu seet si yéen ñi nga xamante ne yéen a yeewoo fii ci Grand Yoff bëggoon xam agression yi naka la demee fi ah, fii daal euh, coow li bari na nag wax ji bari na mais man sérieusement yàgg naa fi mais ñi ma gis ñu leen koy tuumaal ñu fi bopp dëkkuñu fi ñi fi dëkkul ñoo fi wàll si di def loo xam ni seen yoon nekkul ñu ni waa Grand Yoff mais grand fii sérieusement boo nee bëree ak yeneen xeetu ay ci mbag affaire yooyu mais franchement agression man gisuma ko fi. te booy fi dëkk duñ ko fi def bon police bi itam ñu ngi def seen liggéey mais sérieusement ñu koy def dëkkuñu fi leen dañoo yeb waa grand rek ñun fii la ñu nekk fii la ñu màggee fii la ñu yëpp man fii ñëpp ma xam mais sérieusement man gisuma ko ci Grand Yoff mais ñi fiy dëkk na jóge ay caaray jógee feneen ñooy ñëw di defee ñu ni waa Grand Yoff man maa ngi ci sama 56 passé naa fu ma waxee dulul dëgg bëree mooy seen affaire ak ak seen affaire simb man loolu laa xam ci ñoom gisuma fi leneen lu yëngu nag ñu ne Grand Yoff même ñu fiy jaay yenn affaire yi sax dëkkuñu fi dañ fi wàll si rek mais dëkkuñu fi man gisuma fi benn agression boo xam ku koy def fi la dëkk man gisuma ko. comme fi nga xamante ne fii nga dëkk fi Grand Yoff yan façon agression nga fi nemmeeku ñu fi am. bon coow la coowul portable laa fi dégg ay portable laa fi dégg ay affaire yu ñàkk fayda waaw këf waa yooyu nga fiy dégg te mu ñu koy def dëkkuñu fi ay moto la ñuy yor waaw boo ko defee secteur Grand Yoff ñu ne Grand Yoff la. ma du question li ma dëkk fii nag moo tax ma koy défendre mais grand yëf man gisuma fi daal yenn détails xam naa leen ci affaire politique affaire yeneen affaire yi benn li benn litre lañ fi am mooy Zarko ak mobile ak Nandi Fall bëri daal moo fi ne. bëri moo fi nekk di wax aussi tamit damay profité di wax Zarko mu gën a góorgóorlu nag xoolaat nitu démbam aussi am na ci solo lool parce que ñun fii lañ dëkk. te ba muy metti ñu nag moom la woon moom xam bu ma gisee télé dina xam li ma wax lan la na gën a góorgóorlu gën a waxtaan ak ay nitu démbam. maanaam borom moto yi nga xam ne ñooy këf téléphone jàmbur yi yan heure lay nekk guddi gi wala bëccëg. guddi gi lay doon rek guddi gi lay doon même même bëccëg sax day am même bëccëg ko defee daw mais duñ bu ñu ko defee daw ñu ni secteur Grand Yoff la amee Grand Yoff daal li ma la mën wax daal man gis naa ci ñoom daal bëri ak bëgg a liggéey dawal sareet yeneen affaire yi nag mënut a ñàkk affaire xale mënul ñàkk mooy simb fo Eh, xam naa ko ci mais naka ngeen koy dundee tey tey boo ne Grand Yoff ñëpp ne Grand Yoff dafa bari agresseur Grand Yoff dafa loolu ñaawteef yi fa lay xewe non sérieusement ni ñu ko dund dañu metti loolu nag dinañu metti ñun ñu fi dëkk am fi ay doom dinañu dëkk dinañu metti dinañu metti trop te wax dëgg yàlla aussi ma profité aussi tamit di gën a féliciter police bi def seen liggéey lu bari wàññeeku na fi ñu ko ñu jàpp ñëpp boo leen seetee boo demoon ci mécorante bi dëkk ñu Grand Yoff boo amoon tey message booy lancé jëmale ko ci askan wi ban message lay doon. bi may kii daal moo ñu jéem a góorgóorlu jéem a góorgóorlu bañee bàyyi violence bi ci dëkk bi. aussi tamit bu fekkente dañu bëgg dara nañu wuti carte d'identité affaire moo koy réglé dem bu élection jotee nga dem wote mais faut pas nga dem sacrifier sa àddina ci loo xam ni jaru ko nit ki da ngay gëm sa bopp liggéey man loolu laa gëm. merci beaucoup ok merci beaucoup. yaa booy nuyu naa fay naa la yaa booy. ci ñu ñëwoon fii nga xamante ni moo di Grand Yoff bëggoon xam agression yi fii naka la fiy demee exactement. ah wax dëgg fa yàlla dañoo jur nag ku jur nag moom sonn métti na torop parce que nga xëy di liggéey du kurtu kurtu bëgg def bëgg am dara ñu ñëw fekk la li nga am ñu foqat ko métti na suñu doom yi nag ñoo koy def parce que ñun jigéen la ñun ñooy jur ñu ngi ñaan nag ndimbal ku ñuy jàppale te yàlla tax tey boo gisee ñuy def lii ñàq liggéey si la bokk am na yenn yoo xam ne nag dañ ñoo ko tey parce que boo bëggee lu yomb doo liggéey da ngay fekk nit liggéey rek nga ñoo yëkkati rek bëgg a dem ak moom. am na nag yoo xam ne na leen jig am na yoo xam ne du leen jig ñi ñaan dimbal nag pour ñu mun ñu jàppale ñu xool nag ndax changement dina am waaw. yéen maanaam agression bi ban heure la fi am guddi gi lay doon wala bëccëg bi. bëccëg ndar kaama am na guddee am na trois heures amul heure. amul heure su ma nee damay wax heure damay juum man mii di wax ni jaaykatu ndekki laa damay teel a jóg trois heures du day fekk maa ngi takk samay mbaar léeg-léeg damay gis mais tallu ma man sama bos laa tal li may liggéey moom laa tal ñoom la rek damay dégg ay yuuxu mais du ma jéem sax lijjante man sama bopp laay lijjante waaw. ban façon agression moom moo fi faral di am maanaam borom moto yi ñoom ñoo fi ëpp wala ñi nga xam ne dañ lay dikkee ginnaaw teg la ngaanaay. ma la lépp a ngi fi borom moto yaa ngi fi teg la fi lépp mi ngi fi moom lépp mi ngi fi dara manqué wu fi lépp mi ngi fi nu ñuy def daal ba foqati ba mun a dem ak moom wallaahi am na fi. waaw. tey naka ngeen koy dundee parce que tey boo nee Grand Yoff ñëpp dañuy tiit naan foofu la agression ba ëppee ak foofu duma fa dem yéen ñi nga xam ne yéenay dund fii si diwaanu Grand Yoff loolu naka ngeen koy dund. ñun ku ñoo gën a dee dañuy toog rek muñ te yàlla tax rek ndax ñun jombuñu mun na ñu fekk ñu agressé ñu jombuñu kon ñu ngi toog de di dundee yaakaar xëy na suñu loxo tàllalee suñu loxo suñu yàlla ne ñun ñu ngi liggéey pour suñu waar ah xëy na yàlla nañ ñu jàppale waaw. d'accord bu amoon message booy lancé jëmale ko ci askan wi wala xale yi xam ne ñooy ñooy def ñaawteef boobu ban message lay doon. man de dinaa la wax ndax samay doom ak samay raq ñëpp a ngi ci biir parce que fii ñun ñoo ko moom waaw wala déet suñu amoon na ku ñu jàppale foo xam ne laa lay wax ne du ñu agressé du ñu def dara ñu am lu ñuy liggéey moo ñu gënal moo ñu gën a mais bi dafa métti parce que da ngay dem liggéey nga sonn ba bëgg a dee yore sa ñàkk ñoo pour teddal sa njabooti ñu ñëw ne ko foqet jël ko loolu neexul si xol ñu sañoon daal ñu am lu ñu liggéeyal ndax ku am jom soo gisee ñu jox la liggéey pour nga liggéey wallahi di nga liggéey mais boo gisee yenn ñu koy def yenn maa tey la yenn ñàkk ñàkk liggéey waaw waaw man police day ñëw ba fii di gisanteek man sax de mbaar bi fii dañuy taxaw di ma yóndu di yaakaar ne dañ fiy làqatoog yooyu fekk du loolu waaye bu ma génnee rek ñoo xam ne kii moom jigéen la kon nañ avancé dem waaw agression na am na góor am na jigéen lépp a ngi ci biir waaw waaw ñëpp ngi ci biir. jigéen ñi dañuy yor moto wala dañuy nekk si ginnaaw. ñoom mun nañ sax masku masku boo xam ne sa doo xam ne ndax kii jigéen la wala doo xam ne kii góor la mm. nu leen neex la ñuy wàccee nu leen neex la ñuy ñëwee mm. waaw. d'accord merci beaucoup. ok jërëjëf waay. sëñ bi nuyu naa maa lay fay. yaa ngi ci jàmm maa si jàmm bu baax. tur bi naka la. man Adama. Adama tey ñu ñëw fii Grand Yoff seet si leen di waxtaanee li nga xamante ni moo di agression yi ñu bëggoon xam naka la demee fii exactement. non man agression yi fii souvent lu bëri du ma fekk damay ñëw ñu ne ma gars yi dañ ñoo agressé fii lii ak lii après ma dugg sama sama kër su ma su ma xëyee damay dem liggéey wala ma dem jàng xamaloo ma dara boo ne aussi du ma leen jugé comprendre nga parce que tamit doo nekk quartier bi dafa métti am ñoo xamante ne añee du reer du ñu ndékki comprendre fulla ak fayda ak jom moo la siy génne ak xam xam dëkk xam sa valeur mais man dama benn benn bi laay jugé parce da nga am diplôme sax pour ñu jël du yomb dañuy jël ki nga ne doomu diw mu dem liggéey fa mais benn jeune bi xam ne dafa feew benn jeune kay woo influencé ko mu ànd ak moom benn yoon mu neex mais dafay continuer état dafa war a génne ay centre de formation aider dimbali leen dafa leen parce que mënu ma leen juger parce que ku nekk rek am na am na lu tax nga dugg si dara doo tëb tëb tëb dugg si dara ku nekk am na quelque chose de bon en toi loolu amul. yan fa genre agression ngay faral di dégg fii ñi nga xamante ne dañuy këf alalu jàmbur wala ñi nga xam ne dañuy jël ngànnaay teg la ko ngir mën a nangu say bagage. non ça damay dégg ay këf mais ëpp këf laa ëpp lu may dégg fii nii ah loolu. xaw ma nag damay ñëw ñu wax ma non xaw ma xaw ma franchement non waaw. tey naka ngeen koy dundee yéen askan bi nga xamante ne yéen a yeewoo fi Grand Yoff parce que tey koo ne diwaanu Grand Yoff de la naan la agresseur wala defkatu ñaaw yi teew yi naaw ñaawteef yi yëpp foofu lañ nekk. non dëggantaan mais man damay weddu loolu parce que koñ bu fi fi nga toog nii la plupart des jeunes et étudiants des nekk ku nekk nag a jeunes diplômés ambitieux xam lu ñu bëgg ñu xëyee dem liggéey dem jàngi am parce parce parce que ñaan nañ ñu comme comme gars yi nekk si cité yi Almadies yi comprendre nga am ambition nekk ay directeur ay chef d' entreprise pourquoi pas ay grand am ay jeunes ambitieux yu am loolu waaw man loolu man man man man dëgg grand taxul nga bon waaw parce que bon si nit ki la mais mu nga dëgg bu baax boo bëggee baax loolu laa gis. d' amoon euh, message booy lancé jëmale ko ci askan bi wala ñi nga xamante ni ñooy jóge si yeneen koñ yi ñëw di fi def jëf ñaawteef yooyu ban message lay doon. Euh, si si si si si ñi si si ñi fi dëkk laa la la laay blâmer benn ins comprendre parce que nit bu ñëwee jugee feen bëgg a imposer parce que nit bu jugee fenn bu jugee fenn ñëw sa koñ bëgg a imposer yenn yow yaa ko yaa ko war en premier parce que bu deram mooy dem sa der mooy dem loolu rek laay jugee gars yi comprendre nga dina état bi ici y a des jeunes dévoués seen bëgg yu yu bëgg liggéey ambitieux xeebuñ dara ku leen jàppale ñu dem waaw ok pas de quoi c'est un plaisir partagé ok waaw. Euh, kilifa gi naa la. waaw ah, ça va bien. ci jàmm. jàmm bi naka la. man Papi. Papi tey ñu ñëw fii Grand Yoff seet si leen bëgg xam agression yi bi fii naka la fii demee. ah waaw agression yi moom bu dëgg yàlla soxna si bari na trop nag di nga ko weddi mais tamit dëgg la Grand Yoff lañ dëkk ñu ñëpp mais xam nañ ne ñun jeunesse Grand Yoff la plupart laa la waatal ni fii cadre yëpp ñu su bari fii lañ génnee te ñun dañuy wër. Euh, mooy coach bu la neex nii sax fi mooy Sanzala fii moom amul agression ñun xamuñu agression lu dul liggéey ñun xamuñu ko mais dëgg da ngay dëgg nag si net yi gars naan ay Sanzala ay oh, di tur ay tur yoo xam ne kenn xamul yàlla xam di ñu sàqatoo mais loolu amul fii ñu fi agressé dëkkuñu fi dañuy dëkk jóge feneen ñëw mais agression moom bu dëgg yàlla tamit kenn mënu ko bañ ko waa mënuñ ko bañ xam lu tax suñu état état bi jàppale wu jeunesse bi jeunesse bi yaa ngi gis da ngay gis jeunesse bu toog doon chômage am du am liggéey bu amee liggéey sax danga nga bu li ngay fay si liggéey bi du ko arrangé xam nga loolu neexu si xol kon jeunesse bi tamit buñ ku si amul xel rek amoo ko la dimbali da ngay mel noo waru mel te tamit duñ leen ko jàppee quoi amaana seen xelam matul tamit mooy loolu. waaw mais agression yi maanaam ban façon agression ngeen di faral nemmeeku fii. non agression yi moom bu dëgg yàlla moom agression moom mënu maa la wax lii man moom bu dëgg yàlla ay sàccee sàccee laay dégg moom. waaw musuma gis tamit ku ma xam si ak ku dëkk garaaf ma gis ko muy ñu ñu koy dàq waaw ñu ñu si jàpp sàcc yëpp presque dëkkuñu fi feneen nañuy jóge ñëw fii. waaw di ñu sàqatoo di taqal suñu der mais garaaf moom ku leen xam ne ay jàmbaar nañ soxla ñu alal nit waaw. lu kase lu ñu daal waaw. naka ngeen koy dundee tey ñi nga xamante ni moo di askanu Grand Yoff tey boo waxee ne uh, Grand Yoff laa bëgg dem wala Grand Yoff laa jëm sax dañ naan la foofu agresseur wala defkatu ñaawteef yëpp foofu lañ nekk tey naka ngeen di dundee kàddu yooyu. waaw lool métti na trop nag soxna si wax dëgg yàlla loolu moom métti na trop mais xëy na seen xel a toll foofu mais ku xam ko Grand Yoff dëgg xam na ne Grand Yoff wóor na yàlla man si sécurité bu am Grand Yoff amul Ouest Foire amul feneen parce que tey fii fii rek na mën gis. nit di sàcc xale sax am ko ko gis par force dina am ko ko gis kon bu ñu bëggee jël Grand Yoff te Grand Yoff dafa bokk si maanaam dàll Ndakaaru Grand Yoff amul sàcc ñun lu dul liggéey gëmuñu ko mais tamit ñu waxaat rek mooy lu ma la wax sànq rek Macky Sall laa war a jàppale jeunesse bi waaw jeunesse bi moom foog mu jàppale leen quoi te man loolu la xëy ñaaxaan gars yi bañu liggéey bañ kenn bañu liggéey fii koo fi jël mu liggéey day liggéey. barke alxuraan mais nag Macky Sall yow dafay war a jàpp bu baax man loolu laay gën a laa laa koy gën a laasale lii si mu jàpp si jeunesse bi parce que jeunesse bi tey mën nañu wax ne mooy mooy ñoo ñoom ñoo ñu jëm kanam tamit boo leen liiwul tamit day métti quoi dañuy xàddi. merci beaucoup. ok. yaa booy ginnaaw ba ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet présenté waale ñi nga xam ne ñooy seetaan site bi di wasaare société. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. man la Adja Ndeye Ndiaye Diouf bàjjenu araf goxu Arafat 5 maa ngi leen di nuyu di leen fay di leen ñaaral jàmm ak tawféex fas yéenee dugg ak yéen ci sunu gox bu yi nga xam ni gox bu garaaw a garaaw la. tey ñu ñëw fi nga xamante ni moo di Grand Yoff seet si leen li ñuy waxtaanee nag nekk li nga xamante ni moo di agression yi ñu bëggoon xam rek mbir yi naka lay demee fii exactement. fii mooy Arafat 5 fii la Sanzala nekk Arafat 5 la tudd. mais bandi yee ko tuddee Sanzala à cinq mètres si boo boo jàddee koñ bi rek bu ngeen taxawee léegi ma joxal leen bandi léegi police baa ngi nii jege fi ba bëgg a dee buñ leen jàppee dix minutes nga gis ñu indiwaat ñu ñëwaat ñëw toog sa loolu jaaxal nañu di suul yàmbaa ci kër yi buntu kër nit ñi di ko suul ci koñ bi di suul ay jaasi di def pain jaasi waaw di agressé nag timis la ñuy commencé agressé. la waaw timis yenn saa yi 6 la ñuy commencé agressé ci borom oto yi mais guddi fii 6 heures du matin dañuy agressé 7 heures du matin dañuy agressé ay jaasi la ñuy yore pee jaasi lañ ko tuddee di agressé fii ci kaw tali bii ak di koñ bii di fi agressé ba ba ba deux voies liberté agressé dina fa la ñuy dem fii yëpp ba Sacré-Cœur parce que ils sont nombreux. fi mu ne boo toogee fii boo leen wàññee cinquante personnes ngi toog fi ci gannaaw tey agresseur lan mën naa leen dem ni la ñu ngi nii léegi nii weddi boo gis gis bokk ci. police bu leen jëlee du am cinq minutes mu ñëw delloo si la waat leen fii ñu nekkoon. loolu da ngeen dem interroger waa police parce que loolu ñu ñun dañoo jaaxal man damaa dem police ba sonn léegi damaa bàyyi parce que gisuma benn lu ñu ci def bu leen jàppee nga gis oto bi ramasse leen du yàgg nga gisaat ñu ñëw même figure yi ngay gis ñu toog fii. di agressé nit ñi di fi jaay yàmba di fi def yëpp fii daal moom ah dañ fee am ay kër dëkk fi waaye bu ñu soñoon sox jóge fi amul benn sécurité ñu ngi wax berte ak yëpp di jaar fi naan kaar yeeg yooyu bu ñu sécurité wul fii koñ bi fii dara du fi dox te amul sécurité. mais damay for yenn saa ci weewu bay ñu ne ñi nga xamante ni dañuy agressé Grand Yoff fii dëkkuñu fi yenn saa yi dañ fiy romb rek. am na ñu fi dëkk mais ñu fi dëkku la ëpp man fii am naa fi 27 ans ku fi dëkk xam naa ko ku fi dëkkul xam naa am na ñu fi dëkk waaye fii lañ def seen réseau. waa Grand Dakar waa Parcelles waa waa waa waay waay yëpp seen réseau ngi nii réseau bu mag bi daal fii ne ñu tuddee ko Sanzala nga ca Amérique moom lañ ko tuddee nekk fi di def n'importe quoi te police bi nag soriw fi ñun poste de police la ñu amoon léegi police la am am foire ngi ni gendarmerie yaa ngi jege ba jëg bëgg a dee mais dara defuñu ko ci man gisuma lañu ci def daal man gisuma ko. police deful liggéeyam est-ce nga xamante ni yéen a yeewoo Grand Yoff fii yéen a ngi def euh, maanaam seen kéemtalaay kattan pour ñoom ñu mën fee jóge wala. def nañ suñ kattan am na réunion bu ñu fi defoon man ak notable yi nekk fii mais ñi nga xam ne man dama am ay doom yu góor ay ponkali doom yu góor yebuñu ma waaye ñu ne yëpp danoo dem ci seen buntu kër di leen saaga yore seen i jaasi di leen menacer ñu gaa yi ragal dellu gannaaw xam nga loolu tam lu dara wax la waaw dëkk bi amul benn sécurité. bu bu nu ndaxante tali yi ñuy defar baax na yëpp baax na mais sécuriser nit ñi ba nu mën di yore seen alal di dox sécuriser nit ñi ba bu ñu tëddee nelaw sécuriser nit ñi ba koy liggéey kenn du la agressé loolu la ñu bëgg te amu fi. d'accord tey naka ngeen koy dundee yéen ñi nga xamante ni yéen a yeewoo Grand parce que tey boo waxee Grand Yoff ñëpp naan la agression bu foofu la ëppee defkatu ñaawteef fii foofu la ëppee am na ñu si bëri ñoo xamante ni sax ñemeetuñu ñëw Grand Yoff. waaw boobu loolu lépp ci sunu police bi la rek. ak su sunu sunu njiiti état bi c'est l'état parce que su defoon li mu war a def bandi yorul leen a mën a të su liggéey bi jaaru yoon bandi yi duñ leen mën a të xaw ma yaa yoo xaw ma lu ne ci biir mais bu nu defoon lu nu war a def bandi yi duñ leen të parce que ay xale yu dix huit ans dix neuf ans vingt ans ñu ci gën a mag ay vingt cinq ans la ñu am ay xale lañu seize ans dix sept ans dix huit ans dix neuf ans vingt ans ñoo fi agressé ay xale lañu du ñuy mag waru leen a mën a të kenn du wax koñ bi kenn du wax. man de man rek maa fi wax keneen du wax man mii daal di koor bi mooy wax keneen du wax ndax ndax dañ leen a ragal waaw. ah loolu dëggaw ma ko parce que ñoom su ñuy dund seen dund daal ku leen bàyyi fee romb leen dem seen yoon man dama leen di romb sax nuyu leen salaamaaleykum ndax ay jigéen dama leen jur comme man su ma sañoon du nu mel noonu ah. te man xaw ma leen def agresseur ndax boo leen rombee wala nga dem fenn ñëw sax yore lu dis dañ koy jël indil la man daal saa man jaaxle naa man man damaa jaaxle. waaw ba pare ñii koñ bi nag def ñu leen dara ñoom ku xamul la ne agressé mais ku dëkk ak ñoom duñ ko agressé ndax man damay dem ay xew di ñëw ay deux heures ay une heure yëpp di romb ni yenn saa yi ñooy téye sama bagage ku leen jàppale woon xam nga lan la chômage bi la xale yi liggéeyinu fi ñu doon liggéey di jaay di lal nangu nañ ko. dañ leen a bàyyi woon ñuy jaay ci mbedd yi agression bi wàññi ko waaye ba ñu commencé yàq seen place yi la agression bi ñëwaat yokku amuñu fu ñu liggéey amuñu usine amuñu dara ngay gis koo xam day yow kër ndey ak baayam du añ du reer du ndékki nu muy def dañ leen a wuta wutal bu même bu ñu leen wutal leen ay tool ñuy bay ñu wutal leen ay usines ñuy liggéey agression bi wàññi ko mais bu liggéey amul nu agression bi wàññi ko ah ay xol yu bon de yoruñu ay xol yu bon mais daal ñàkk liggéey bi moo indi lii man maa ko wax. message booy laa lancé jëmale ko ci askan bi wala yenn ci parent yi ban message lay doon. parents yi xanaa ñun ñëpp ci yem parents yi xanaa ñu gën a téye seen doom sàmm leen rek gën cee jóg ndax ñi ma fi gis ñëpp danoo sonn seen doom dangay gis ku ñëw fi di du du doomi baa doole yi rek de doomi ku nekk a ngi ci nag. doomi avocat yaa ngi ci agresseur yi. doomi directeur yi service yaa ngi ci agresseurs yi agresseurs yi du du doomi baadoole yi rek nag ma xamal la ko tey ndax n'importe quel nit moo fi ñëw gaare otom di wër doomam. pour jël si ko. pour jël si ko bu ko séenee daw wala bu ko jëlee bu yàggee mu ñëwaat kon loolu du doom doomu baadoole yi de doomi ñëpp la maa la wax lii man. kàddu gu mujj gi lan lay doon. xanaa di ñaaxaat gouvernement bi di ko xamal ni tali bii mu def fii. kaar yi nar fee daw bu amul sécurité dara du sotti bu amul sécurité lamp dañ ko toj bu amul sécurité tali bii ñuy def nii weñ yi dañ koy buddi di yóbbu bu ko amul sécurité dinañ buddi seen raccord yi yóbbu ko te bu amul sécurité nit ñuy dugg ci kaar yi leen agressé ndax bu kaar bi ralante war a taxaw mën nanoo dugg ñeenti fee ñeenti fee agressé lu gaaw gaaw cinq minutes agressé nañ kaar bi yëpp te te te boobu am fi yow yow état ci dëkkam dafa war a xool sécurité doomi aadama yi bakkani doomi aada yi aadama yi bii ci guddi si agressé nañ fee waa ji yuux ay ay six heures du matin ndax day fekk ma yeewu di julli waaw kon nag loolu war naa mën a ñàkk dafa doon liggéey di dem ñu agressé ko mu yuuxu ma taxaw ci fenêtre bi di ko gis ñu jël portable am heureusement jamuñu ko ndax nit ñi danoo gaaw génn mais loolu bari na fii fii def nañ fi lu ne lu daj na def nañ ko fi nit waaw léegi nag état bi moom moom moo war a sécuriser ay nitam te te man gisuma sécurité boobu waaw parce que police boo xam bi man damay tukki dem naa fu ne ci àddina mais police foo dem ci àddina da ngay gis policiers yi di dox di dem ko ñëw fii suñu police six heures kenn du ko gisate xanaa police guddi bokku ci xanaa gendarmerie guddi bokk ci kenn du ko gis fii tali bii fii ba Liberté doo fi gis benn policier bu pointé Liberté 6 ba Dakar doo fi gis police policier yi guddi amul. gendarme guddi amul kon lu ñuy jàppe sàcc guddi ak lu ñuy jàppe agresseur guddi ah dëkk yi boo dem bu dul Sénégal gi guddi da ngay gis ñuy monte guddi ak ñuy monte suba effectif police moo doyul effectif gendarmerie doyul moo tax agression bi bari voilà jeex na. merci beaucoup maman kàddu yi rafet nañ kontaan nañu bu baax a baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw di leen ñaanal jàmm di ñaanal xale yi di agressé yàlla nañ ci yàlla génne. parce que du ñuy xale soxor du ñu bon liggéey amul liggéey bi dafa war a bari buñ ko côté bu ne mën nañ faa jaar pour xale liggéey dañ koo deful waaw loolu daal laay wax agression bi nag du doomi baadoolo yi doomi ñëpp a ngi ci biir salaam